ak seen agence Techno Habitat mi leen di sàmmal seen i bien immobilier ñoo leen di may di ci yéenekaay yi. si àndal. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyee tefesu Ndakaaru ne géej gaa ngi faat rawatina géej bu géejawaay yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien am na ci ñeneen ñeenti koor yoo xamante ne daanaka ay néew la ñu gis leen ci plage yi yéenekaay bi boo xoolee ca Wakhinane nag Golf Sud fa la ñu feeñee Walf Quotidien di ñu fàttali ne juróom-ñetti bakkan rot na ci géej gi ci diir gu gàtt mu ngi ci Walf Quotidien Vox Populi eh, feelu ko ci eh, xëtam bu njëkk lu yeme lu doy waar la ndax lu toll ci fukki doomu aadama ñett yu lab ci géej gi juróom-ñett nañu juróom ya ñu jot leen a eh, gis ca Malika Gaddaay ak Malibu yéen cabinet géej waay googee sax jot nañ fa nemmeeku lu toll ci fanweeri doomu aadama ak ñeent ña ca loru lu toll ci fukki doomu aadama ak juróom-ñett yu faatu ci diggante weeru mars juin gi ñu weesu njiitu réew Macky dankafu na na ci askan wi jot nañu jël ci matuwaay ngir mun a yokk kaaraange gi eh, ci plage yi yéen a kaabi di turbine tey ma wax leen eh, plage yi nga xamante daanaka fa la askan wi di faatoo eh, bokk na ci plage bu Géejawaay ca bokk fa tolloog Malika lim takku ci ay doomi aadama seen bakkan rot na ca yéen a kaabi ne ci diiru ko ñetti weer lu toll ci fukki bakkan ak juróom-ñett ñoo fa lapp ca biir ndox ma bilan ba gën di yokku fanweeri doomi aadama ak ñeent yoo xamante ne plage image yeeg melokaan yi juróom benn yaa jot a sowe am na ci fukki yoo xamante ne ba léegi kenn mënagu leen a teg gët ñu ngi ci biir euh, géej gi euh, lii quotidien lii doy na waar lool euh, càggante la ci kilifa yi ba tax na autorité yi ñu ngi ci waroon a taxawee plage yooyu le loolee moo amut ndaw ñaa ngi sànku ku leen di sànk du kenn ku dul autorité yi ndax diir bu gàtt lu toll ci fukki doomi aadama ak juróom-ñett faatu nañu ci plage yi yéen kabi di enquête xëy ci amal enquête gu yaatu ne chiffre takku nañu lool yéeme nañu lool lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama yoo xamante ne ñoo faatu bilan ba gën naa yokku yéene kabi ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk njiitu réew Macky Sall ne dootuñu seetaan dootuñu baale lenn ñey def sudul noonu ci plage yi alerte quotidien ne lu waral tey plage yi euh, daanaka euh, musiba di ca tukkee saay su ne ndax lu toll ci juróom euh, fanweeri doomi aadama ak juróom benn yoo xamante ne jot nañ ca faatu ci ay weer yéene kabi ne waral bokk na ci tàngoor gu metti goo xamante ne tax na askan wi Euh, plage yi ngir mun faa fiixlu yéen kabi di la quotidien ne njiit réew mi Macky Sall ca tàngooru Fuuta ci waxin tournée économique gam fay amal jot na fa inauguré jot fa te xeeru njëkk euh, ci Abdoulaye Daouda Diallo Podor Mamouné daanaka amul benn jafe-jafe ndax lépp njiit réew Macky Sall jot na ko fa safara ngi jiloon moom jot nañ ko fa beral loxo dalal na ko fa ci kilifteefu Sada Ndiaye euh, le quotidien moo ko yëggee l'évidence ne bu dee ca jawbe moom jot nañoo delloo njukkal manifestation yam fa jot a amal las moom ne njiitu réew mi yëkkati nañu loxoom ca Fuuta bu ñu sukkandikoo ca inauguration hôpital niveau 1 bu Agnam ci kilifteefu euh, Farba Ngom yéene cabinet nag ñu ngi tabax wala boog di taxawal euh, yoon gu bawoo bokku be jàpp Labgar lañ cay dugal ci koppar toll na ci juróom-ñaari milliards las moo ñu ko yëggee sursoine ci jamono jooje nag euh, daanaka am na lu xajamal ngan googe ca diwaanu Fuuta yéene cabinet ndekete am na ñu fi jëlee fii ci Ndakaaru ngir ñu mun a feesa del euh, meeting ak ndajeb mbooloo ga Mamadou Racine Sy doon amal foofe ca Podor yéen cabinet yooyu la ndaw ca biscuiterie ak itamit HLM lañ leen loué waaye nag lañ leen digoon ci koppar la ñu gisul bu ñu demee ba foofu dañoo faf fippu euh, ba toj ab bis goo xamante ne ma nga woon ca gox ba gannaaw bu ñu gisee ne lim bu takku ci ay ndaw euh, jot na leen fa yóbbu fay leen koppar gu duun ñoom nag dañ leen a faf sànq yéen cabinet di sursaane kenn ci jege ñaale njiitu réew mi Macky Sall ndax Eh, njiitu réew mi ndax coalition Benno Bokk Yaakaar gamu bokk njiital parti la eh, parti sénégalais pour l'action et le développement yéen cabinet waa joojee dafa doon njuuj njaaj ay doomi aadama lu toll ci ñaari eh, téeméeri doomi aadama la njuuj njaaj ca Touba am koppar gam de doon laaj ngir ñu mun a bokk ci der bi yéen cabinet suuf saane kooke teg nañ ko loxo yéen cabinet Le Soleil ne ba léegi jant gaa ngi koy tiim ca diwaanu Fouta njiitu réew mi Macky Sall xamle ne kóolute gu uh, yaatu te guy wéy moo dox waa Fouta bokk na ci carte sanitaire ba gën nañ ko dooleel hôpital ya bërëbu fajukaay ya bëri nañu lool ca Matam rawatina hôpital niveau 1 goo xamante ne jot na ko inauguré foofee ca Agnam lu toll ci ñaari milliards lañ ca dugal yéen cabinet des échos di ñu xam lekk Abdoulaye Daouda Diallo euh, Farba Ngom yéen cabinet xàllal nañu yoon njiit euh, euh, réew mi Macky Sall tapis lañ ko lalal ca Fouta critique ne njiit réew mi Macky Sall fala delloo njukkal Abdoulaye Daouda Diallo ndax newul ne moom a wutu njiit réew mi jëmee ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen a kaabi di euh, Sud Quotidien élection locale jotagul waaye nag gaay soobu nañu euh, ci campagne électorale xaat doore ko ci njiitu réew mi euh, Macky Sall ma ngay amal tournée économique goo xamante ne rax na politique opération Tibi Tank gëm sa bop bu Bougane Gueye Dany ma nga ca grand parti tamit ma amal ndajëb mbooloo opposition bi ña ngay wone seen bopp Dakar Times ne gaay ngi yëngu waaye nag bu ñu deful ndànk élection locale 2022 yi yooyu février eh, ci janvier 2022 lañ ko jàpp juróom-ñetti weer lañ ci teg eh, juróom benn weer laata ñu soobu ci élection législative kon ñoom ñaar mun nañ leen a boole Walf Quotidien dikkat ak ñun ci mandat njiitu réew mi euh, Macky Sall am ñu bëgg euh, mu dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle 2024 ku mel ni Bougazeli mi xam le ne njiitu réew mi Macky Sall euh, mun na wutaat beneen i mandat kii di ki nga xamante ne mooy jawriñ gi ñu denk wàllu njàngale mu kawe mi xam le Cheikh Omar Anne ne njiitu réew Macky kenn waru koo xañ mu dagaanaat baatu askan wi dañ ko gunge ba mu faluwaat ci bopp réew mi yéene cabinet ña dar njiitu réew Macky Sall bu ko daanaka kenn ku ne ci ñoom daa am fuloo yoon bokk na ci Cheikh Omar Anne moome ci rapport OFNAC mu ñeel atum 2017 bu gazeli phobie ya ñu fekkoon ci wotoom yéen a bi di Walf Quotidien ne li moo tax ay faucon ci jamono ji dar nañu njiit réew Macky Sall ngir bugg ko sànq direct news jox kaddu gi député eh, Abdou Mbacké Bara Dolly wax na xalaatam ci tolluwaay réew mi gis ne njiit réew mi Macky Sall parewul ngir dem élection locale yi tournée économique bi daanaka def lu bëri nëbb jafe-jafe askan wi eh, bokk na ci boy wut eh, xëyum ndaw ñi faw nga tàggat ndaw ñi ba noppi la mu gis moo ne daal nañu libéré otage politique yi eh, ki tamit fexe ba teg loxo ñi nga xam ñooy nervi yi 24 heures ne nervi yooyu la daanaka nguur gee leen taxawu moo leen di xont ci jamono ji yéen cabinet moo leen di dooleel bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna ne bu ñuy sàggan ba ñu faat fi benn nervi ci mim réew du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall Guy Marius Sagna ne askan la nangu ñu leen di tamit euh, lagab laxab ab buum di leen yóbbu ci wàllu politique euh, doonu leen ay mala noone la ko Guy Marius Sagna fësale l'info ci xëtam nu Lo la xëy waxtaanal adduna ci tolluwaay réew mi bokk na ci ne coalition Benno Bokk Yaakaar mënuñoo demee benn liste élection locale yi ñu jëm euh, Thierno Lo ne lu ko soxal lu ko yitteel mooy fexe ba dooleel secteur privé bu Sénégal bu ñu buggee fulaat koomub réew mi bokk na ci liggéey gu yaatu moom la armée bi di amal foofee ca jot nañu sax teg loxo bërëb yu bëri yoo xamante ne way fipp ya fa lañ nekkoon ñu ngi ci jafe-jafe yu tar yéene kabi di libération ne jafe-jafe ci campagne yu gerte gi am na ci ab opérateur goo xamante ne jot nañ koo teg loxo om d'affaires la Mor Dieng lay wuyoo jot naa njuut njaaj ay opérateur yu bëri lu ëpp ñaari euh, milliards l'observateur ne lu mat a bàyyi xel la armel yaa ngi fees del te ba léegi jéego amagul matuwaay amagul ci feneen foo xamante ne war nañ fa mun a denc askan wi yéene kabi ne jëlal armelu Pikine fees na del caw leen naka noonu jokkul ak euh, dangu ak feneen ak feneen l'observateur moo ñu ko yëggee yéen a stade mu ngi ci euro 2020 euh, ndorteel ak duggu euh, Portugal mi was fas yéene jàkkaarloog Hongrie yéen a kaabine ci waxtu googu le France ma ngay waajal diggante mag almaañ match bu réeré la nara a doon yéen a kaabi di suñu lamb xëy duñu dégtal dubalees ma ne ci jafe-jafe yéen a kaabine yaram waa sutante ci jamono ji wax sax yëkkati kaddu jafe na ko lool doomam bu jigéen moo ko taxawu ca Dakar eh, ci sama kaddu amateur yi di ñaanal Double Less mu yëkkatiwaat ak jàmm eh, suñu borom mayaat ko wér gu yaram gu sax dàkk ndax doole la ci lamb ji. Ndayane Imo distribution ak gaamam bi di warga Ndayane ceebu Ndayane boisson Ndayane.